waaye lu xew mbaa nangu sa nangu sa nandu mu nangu sa nangu. laay ko xanaa xamul lu mu def xanaa xamul sa papa ancien militaire la papa Diop. fi nga la. la rek mooy kenn. yow da ngaa xam ni booy woo nit di ko woo di ko mbéj mbéj mbéj mbéj mbéj mbéj ba ma nekk ci yow wala nga war moo may. may ma ma ñëw rek. ah moom laa tudde sama baay yow ku la jot rek dina ma jot man sama doom ku mu tooñ rek bu ma ko jàppee dinaa ko ñuus yow xam nga baayam man sama ancien militaire la sama matricule xam nga la la woon 466. benn xale bi laa la wax nga toog fii di wax looy wax. ma doxal ñu dem nga wan ma ki la dóor. ma wax trop dama li jënd. xaaral xaaral may ma rek. doxal ñu dem. nga wan ma ki la dóor yow. moytuwul ñu dóoraale la. boo nga ne lan. dama ne la moytuwul ñu dóoraale la. ma ñu dem demal rek. kat moo la dóor laa lay laaj. loo jotee ak moom. dafa nangu sama ndënd. moo la sooñ nañ dem ma ñus ko ba mu doy fa yàlla. jiitu wax ma fan la. ñus ko rek. sa baay yow. nañu dem rek nga woon ma ko ma ñuus ko ba mu tëdd fa yàlla ana nga kan kan la wax ma fan la kan fii fan la eh man la man la yow wuy ma da ngaa jum de xale nga ma wax eh man man yow xale nga ma wax wala magam ji ma saa waxtaan li ci bisab si mi comme bisab si gendarmerie da ngaa jum de kii la booy salaamaaleykum. waaw la booy wax dëgg la man la. sama doom yaa dóor sama doom yow. maa ko dóor waaw. maa nangu ndënd bu nekk fii di tànqal nit yi. ak kii yow man xiyaamul akbar. waaw kaay. ay boltu gént naa di daw. balaa ngay boltu. waaw yow yow ban yab nga ma yab ngay jaar fii di di sama raakis di ma di ma taxal suuf. booy boo boo bëggee dégg-dégg. la man ak sama doom ñuus na ba nu fay réewante lañ dëkk. léegi kon looy bàyyi na bàyyi la. juum rek kii daa réew. ndënd lu sala dox yoroo sa lu tax yoroo sa doom ji laa wax dama gént dama bëgg wuti dama bëgg wuti naana naana naana tam xarit eh, kaay kaay loo yor fii isin boltu laay toppandoo yor nga téléphone wala xaay dama gént yoruma dama boltu lii du téléphone kaay yaa la indi sax yow xamoo ni ma xonetee ba wuule tekkil sa gaño gi nga nga yor am lu ma laaj bu ndaw loo may laaj Fais-le. Fais-le.